शेयूसरीन या शेख हयू सरीं बि लुकदमा तहफाउ कशी मलेबल तहक अका मंझम canuk njege marbi bi ataytu ko dikkel na la ya cheikhi yo sama serigne ya cheikhi dalilan bi ma aji torokh wa muusiran te aji ñak wa inni tanaka man muusirun aji la al ghadatu ci suba gi bim ci dahi ko ci sag tag buum ci dahi ko ci sag tàgg tokkun yal na nga nek li di ma ñeel fil mahya ci dunduga بنيل مقاصدي ام سمي جبلو وموتي اسمك فاتو واذ وافا اك نكير نكير ومنكر اك منكر وحند نشور الخلق اك فدك من في ثم وقوفهم توب سينو تخاو لاجل الحساب غير حساب جا والجميع تنيب تحيرو غلم نانيو كذلك ني حند ميزان فبلاص بني بيسي واخذ صحائف اك جاب اي كاي تجف وحين سرات اك فسرات فوق نار بنك تكو صورة تسحروا دفنكو تال وخستيال نغا جاب بيدي سما في كل هول تي ميبتيت وشد وشدة اك بفترتر وشدة قبيل الحنا تي نيك جونا يا من يوم نغا tam matna na la ñeel ko mafxaru ndam mu ne ko sëñ bi dama ñëw torox lool ñàkk lool waaye nag xam naa ne suba gi ma xëysee andi tagg wi moom ci lay tàmbalee di woomal nag tàggoog ñàkk tàggoog toxte kon dama lay yelwaan nga doon sama lépp ci dund gi ak bu ma faatoo rawante na su duggee ci bàmmeel ba yaari malaaka yi laaj muy nakki rek munkar ñëw ci man taxawuma doon sama lépp bu yàlla dekkalee mbindeef yi taxawal leen foofe ñu leen di xisaab ba ñëpp maas ci gëlëm nag ma taxawu foofe biñ dee peese jëf yi ak bu téere jëf yi dee tasaaroo ku ne war a jàpp soo kayit sa téere jëf ak buñ galé sirat ni nit ñepp aw yépp rek sëriñ bi taxawuma ci fofé nga japp sama loxo taxawuma ci lepp luy xétu lepuli ak lépp xét tar tartar bala ma son rek nga ma taxaw ndax yow sa ndam ak sa daraja ak na fu ne ateytu dikk naa ilaykum jëm ci yéen haahuna li ziyaaratin ngir siyaare wa fil qalbi te nekk na ci xol bi min nii ci man maa loo xam ne ukkinnu danaa ko nëbbu wa asturu te ma koy suturaal wa asturu sëriñ bi tey jii damaa ñëw fi yow ngir siyaare la te fekk nag am lu ma ëmb ci saa xol bëgg nga fajal ma ko taxarradtu gaaral naa yaa cheikhi yow sama sëriñ li nafxaati juudikum ñeel may seenu tab xasa nafxatun xëy ak may min kum gu tun siru dana dekkal ram sama yax yu funux yi mu ko damaa ñëw di taataan sa waamee tab sa waamee yërmande xëy na lu tuutee tuut ci sag may rek ma am ko mu daal dekkal la deexoon ci man dama meloon ne ku deeba funux waaye nag mu tuutee tuut lu bàyyi ko ci yow rek xam naa ne mën na maa dekkal rajawtuka yaakaar naa la xàqan ci dëgg-dëgg wala boog dëgg-dëgg yaakaar wax du noonu te njort jamilatun aji rafet la waxaa shaakate jommante ak yow añ yar juuka mu lay yaakaar mar um seenus cam fa yax te muy perte dama laa yaakaar te ku xam dara ku ne dama rafet njorti ci yow kon nag ñëw naa yaakaar la rafet njorti ci yow te xam naa ne kenn du yaakaar mukk yaakaaram di tas ayin nii dimbali ma àla dëxërin ci jamono baraani baraani jot yett na ma binaa bi ca sellam ba wa advaarihi ak ay wexam ay we man yan tasir ku dimbandikoo bi ko ci yow yoon saru def na ko dimbale dafa def yoon saro ngir wey wi yoon saru rafaa ko dane ko jamono ji dafa metti ci man mel ne ku ma màtt akub sellam xori ma ak ay weexam waaye nag maa ngi sàkku ndimmal ci yow te yow ku la dimbandikoo rek am ndimmal alay ko dénk naa la bi jabaril kasri ci jàng damm ga maanaam ci defaraat dam damm ba mit ñi ci man fa innama kasiru wara nak kañu dem ci minde fi turan mboole sen yujbaru def nako jang bi jori ko ci sa tap dama yaakaar nga defarat li damon ci man li ci man ndax kep ku dam te bëgg ko fajal ab damm dammam ak ku mel doon rek bu dikkee nga fajal ko dam dam ba mu daal di wér ka yàlla na doole nekk ci yow rida baaxin ngërëmal aji des karimin koy aji tedd haymin koy aji seere lépp wa ardaaka te mu gërëm loola ifdaalan ci ak gënal wa anta te mbir moom yow muhammadun ku ñu guddal fan nga yal na fi yàlla bàyyee bàyyi di la xëpp ay ngërëmam di la xëpp la nga gën bëgg ci mbaaxam ak ngëneelam da yàgg fi loolu rekk sa yàgg fi sunu njariña bi jaahi shafihil ci darajay ajramu mbindeef yi taaxaate mooy taaxaa muhammadin te moo di muhammad rasulun ab yonante la qad dalla bab toroxna maanaam mokk na lahoo ñeel ko kisra kisra wa qaysaru ak qaysar alayhi yàlla doole nekk ci moom salaatullahi taralu yàlla tuma salaamu wa topp dooli wóoloom wa alin ak ay ñoñ wa ashaabin ak i sahaaba lahoo yooyu ñeel na ko qad tabaxaroo ñoo xam ne géeju nañu géeju nañu ma daxari géejub jamono maa saara li fekk dox na alxajiiju way aj ya maanaam ñuy aji li makkatin jëm ci makka wama arafaatul ak li fekk nga xam ne arafaat xadd xawat hum ëmb na leen ñoom ajkat ya wa masharun ak almasharul xaraam wama qaala ak li fekk wax na ibrahimu ibrahim Diop mii bad an ci ak tàmbali waxat matan ak ci ak mucc ne li rabbi taala alhamdu wallahu akbaru lim ñaanal sëñ bi la yàlla ko yàlla def ci darajey kii ràmb mbindeef yëpp te mooy muhammad mu yorante boo xam ne yàllaa ko mokkalal noon ya ba wa Kisra wa Xaysara yi nga xam ay nguur yu mag lañu won ci jamono yépp mok noy top ci gannaaw mu ne yalla nako yalla doli dooli ak jamm mok mbokam yaag sahaba yi nga xam ñu meloon ni ay geej te yàlla soxal teraanga ñu jamm ji faaw li fek nga xam ñi aji makka ñi ngay jóg di wuti makka di dem ba arafat barabu sel yooyu niki al haram ak li fek nga xamne ibrahim Diop mi mi ngi tàmbali xasiday tag ci sëriñ bi di wax ci tàmbali ba li rabbi ta'ala alhamdu wallahu akbaru da bari bu ca mujj itam dal ko wat ne li rabbi ta'ala alhamdu wallahu akbaru وله أيضا من البسيط بحر بيوم تكوي بسيط ملتم داني لراه innal xadiima naka ak yëkkati yonante bi allasi bi nga xam ne daa may na ko dana ñeel nu alqadaru dogal bi lexoo ñeel na ko mawaahibu ay may laa tubb xi yow duñu desal dara wala tadaru te duñ bàyyi dara wala tadaru te duñ bàyyi dara sëriñ bi nga xam ne yàlla nu ko baaxee de cib dogalam ak mbaaxam ak ngëneelam yalla ko jox ay may yo xamni amuñu fuñu yam buñu amé fuñu tambulé fu ñu tàmbalee itam amuñu fu ñu yem foo moom alxadiimu mooy liggéeykat ba ibnu hibbillah kay doomi habibullah ahmad to moy ahmad man ka nga xamé ne saadu sangna al mashayikh sëriñ sa ahlan xilmi ñari ñun xam-xam man nga xamne tahuru lab nañu waxoo moom allasi mooy ka nga xam ne asuuf bu xiin yi maanaam ni duuna an mu lay nekk nañ jiyees kóolu baaraamam ba juudañ ci ak tab wa duuna xosni mu xayaahu te nekk ne di yees taarub xarkanamam asana te mooy leer ga nekk ne di yees rafetaayu xarkanamam alxamaru weer wa دا وخشي سوفني أرسلنا هنا مفهول لأجله ومجيئه محلا بالقليل والأكثر في هذه الحالة جره بحرف دال على التعليل من يسرين بي موي دوم حدود الله موفيتكم fete ko mbolem seigne souba sax xamna لير set ak sell mooy ku tabe koo xam ne danaa jëlale la yaari loxoom di sotti waaye kóolu baaraamam rek la muy sotti raw na fuuf li xiini asamaan yi sotti raw na daal waame ba tey leeraayu kanamam xeeb na lool leeraayu weer ak taaru weer nam ko waxe woon ci gannaaw ne xam mel ne xarkanam sëriñ bi moo abal weer wi leeram ak taaram qad xaasa làq na min xulali saadaati ci koddaayi sang ya ab hajaha gën jaa taaru seen wa naalate mu am maa loo xam ne lam yanal musu ko am xutubun benn xutubu wala wasarun du jaageenu benn weerukaay daraja yi nga xam moom la ñuy jox sang yi mu mel ni ay koddaay yu ñuy daraja woo yàllaa ko jox ba ca féete kaw mbaa nga ne ya féete kaw mu am loo xam ne benn xutt bu benn nitu yàlla mësu koo am ak rim kaw ci bu tedd nga bii ci moom daw xatan ci ndànjantaan ndànjantaan mooy garab gu rëy axsaanuha gog ay bangaasam im ba saqat yëkkatiku nañ ba gudd xadd taaba teey na awraaquha ay xobam wa dillu ak kerga wa tamaru ak meññet ma mu ne cey boo ko doon misaal da wax ne garab la def ndànjantaan ay caram gudd ba ca kaw li kaw làng lu yaatoo yaatu nga xam ne xob yaag ker gaag ma lépp rek la ñuy yéem lu ca nekk rek àgg ci dayo boo xam ne mu ne su ko wax shamsun ab jant la minal fadli ci ngëneel illa an na xaasidahoo ndare naka aji jubloom ja laa xarra di réen tàngaay yudrikuhoo di ko jot kallaa déedéet ba uyu wala dararun du caageen lor mu ne mën nga koo misaale jant waaye kon da ngay wax ne jant la boo xam ne amul tàngaay amul lor jant bi moom amee tàngaay am lor waaye sëñ bi moom kon jantu ngëneel la boo xam ne amul lu may njariñ de amul dara ci lor baxarun géej la minal déw di ci tab illaa anna saaxilahu ndare naka dafa sam nga bihi nekk na ci moom az zabarjadu zabarjadu wal ak wursu yaaquut wa doraru ak ay wursi doru mën nga ne géeju la goo xam ne boo fekk fa loo bëgg ci xeetu zabarjat xeetu ak ndegam tefes ga rek mooy fees ak yu mel noonu kon rawante na ku xuusoon ca biir géej ga xóotul xuloo bi mooy dundub xol ya xayaatul xalqi te mooy dundub mbindeef yi xudwatuhaa te mooy seen royteef lakinnahu waaye moom matarun ab taw la yuqdaa def na faja bi ci moom alwataru aajo ma ne ci la yi dundee mooy dundub mbindeef yi mooy man nga ne taw la boo xam ne day faj aaju yëpp di dàq bekkoor yëpp hadiyatullaahi mooy may yàlla ga dil ifdaali kay boroomu gënal rahmatuhu te mu yërmandeem lil aalamiina ñeel mbindeef yi siraajul xaqi làmp dëgg ba daal musdahirun aji leer la man nga ne it siraajul xaqi musdahirun lil aalamiina ba noppi itam rahmatuhu moo yërmande yàlla lil aalamiina sëñ bi daal may la gu yàlla may rek mbindeef yi yërmande la ji yàlla yërëme mbindeef yi làmpub dëgg la boo xam ne mooy la mbindeef yi bañ xam fañ aw jëm ci seen boroom xutbun xutb la mu rabbin koy aji tërbiyaa mu raqin koy aji tarqiyaa xaabidun te aji jaamu la warixun te aji sàmm la nadbun te aji baax la koo xam ne jamihul xëyri mboolem aw yiw mooy lépp lu baax yëpp taddiru day jëkkante ilih jëm ci moom waaye yàlla la joo xam ne day tarbiya di tarxiya di jaamukat boo xam ne moo gën a sàmm la mata di ku baax koo xam ne daal lépp lu baax yàllaa ko jiital jëme ci moom mel ne lu baax day jëkkante di jëm si ci moom mel ne lépp lu baax day njëkkante rek jëm si ci sëriñ bi xaasa làq na almanaaqiba ngëneel ya fii sirin ci lu nëbbu wa fii alanin ak ci lu feeñ wa fii alanin mubaarakan mbir mu ñu ko ñu barkeel xadd talaaw koo xam ne topp na ko aljinnu jinne wal bashiru ak mbindeef yi muy doomi aadama yi yàllaa ko jox mboolem xeeti ngëneel yi ci biir bitti yàlla def ko muy ku barkeel barkeel koo xam ne nit ak jinne ne ci yàlla nar ñoo yërmaande ñoom ñëpp ñoo ko topp ngir yàlla maaraama mësta sàkku am daaxaxoo ay taggam sof sun jëmm fa adrakaha te mu jot leen illaa ka mudriki baxarin aji jot géej wax wa te mbir moom géej ga musdaxilun aji fuur la mu ne ku jóg ne daa koy tagg loo farlu farlu lu néew néew rek nga mën a wax ci moom mel ni ku fekk géej nga ne daa ko bëgg as ba mu jeex loo as as day mel ne rek asoo dara isa tafaaxara ndem damoonte na ahlul majdi ñooñ tedd nga kulluhumoo képp ci ñoom fa innahoo naka moom yaf taxiru dana damu fawqa faxayul kulli ci kaw ndamul ñëpp su gaay baax yi doon damu ku nekk di wax la ko yàlla defal su waxe la ko yàlla defal rek ñu fàtte la gaay yu baax ya waxon ne moom leen yàlla defal ndamam des ko tekkale ndamal kudul mom hada jindina alxalaayiqa mbindeefi alxalaayiqa turan boole seen nuuru xikmati yi leeruk xikamam nga ilal lëfi ndarekal nga xamee ne de diko ñeel samhun ak dégg wala basarun du caagin ab gis mu ne mbindeef yi nga xam ne day am nañ ak dégg akuk gis nga xam ne gumba wuñ taxuñu sëñ bi gind na leen leeruk sëriñ bi gind na leen bañu dëg ma seen boroom ma nekk seen boroom koo gis rek gindikuwul ci moom day ku gumba tëx luu xadd saara dox na lillaahi jëm ci yàlla laayal yu du geesu xala ahadin ci kenn mbaa lenn wa ma tawaqafati taxawut xataa jaahu ba dikkal ko ak dafaru tuufu ga ne sëñ bi dafa jóg rek dëgmal yàlla geesuwul dara lu may yàlla ba àgg ci yàlla am la mbëggoon lépp ci yàlla araama sàkku woon na almaqaamaati maqaama ya xataa naa la ba ma am ak baraxa gën jaay si boo wa faaqate mu kawe man ña nga xam ne kaburoo mage nañu xataa ka an saxuroo ba mel ni dañoo ndawe dafa jóg dëgmal maqaama yi féete kaw ba am maqaama yi gën kawe dëgg-dëgg bi nag mu féete kaw góor yàlla yu mag yaa mag ba boo dee seet góor yàlla yu mag ya dañuy mel ne ay taalibi rek yu door a jóg ci boo leen di tëkkaleeg sëriñ bi mel ni ay gone rek lañu tawaa taxañ na almasafaati diir ya maanaam soriwaay ya li sullaaki ñeel way soobu ya tuma isa naawasaloo topp nag ba nga xamee ne àgg nañu wala topp ndeem àgg nañu nashram wisaare aljadduwaa njariñ la fatam tashiru te muy tasaaroo ñi ñëwoon jox ko seen bopp sóobu yoonu yàlla da leen a taxañal yoonu yàlla wi ñu dem fa saasay saasa bañ àggee ci yàlla mu daal leen di tasaare xeeti njëriñ yu ëppuut baax jaay na alfana jeex ga bil baqaa jëndikook des ci dëxan ci dëgg-dëgg fa mallakahoo te fal ko rabbun buur malikun bi aji moom lépp taxaalaa boobu kawe na wax wata mbir moom moom muqtadirun aji sarkàttan la dafa jaay lépp luy jeex jënde ku la dul jeex yàlla gërëm ko fal muy kilifa ñëpp ma ne bu fekkoon ne dañuy falu nguur yàllaa ko fal muy buur bu àdduna ak àllaaxira boo xam ne du folliku mukk mukk wajaahu te mu dikkee ko bi masaayal awliyaa yi ci ngëneeli xeej yàlla yi maxan boole seen fa te dikkal ko bu shurun ay mbég maa misluha yoo xam déet di seen morom bu sherun yeneeni mbékk yàlla da ko gërëm fal ko may ko mbollem la mayen gaay yu baax ya ba may ko lu mu leen mayutoon defal ko ay xeeti mbég yoo xam ne masifutu sentu yu na mel afhaluhu mbollem ay jëfum al khayru aw yula illa annaha داي نك جيفم يوي رشيد اك جوفلا وقوله تي وخم الحق موي الا انها نك خينا الا انه داي نك وخم درر اي ورشي درو ولا بو قوله داي مخنام واقواله كون خينا كون الا انها من تي دلو دني سيغ lay defe ko wax bu ne jëfam yépp aw yiw la bu ci tegee illaa day mel ne la topp illaa aw ŋàññ la du aw yiw waaye wala ñu wax taakidul madhi bi ma yushbihu dam fedd le tagg lu nuru ŋàññ ndax dane jëfam yépp yiw la ne lu may nag jëfam yépp ak jub la mooy jëfam yépp dafa jub tegu ci yoonu yàlla moo tax lépp di aw yiw bu dee itam waxam jëpp dëgg la ci illaa day mel ne dafa dugal ŋàññ te fekk la topp illaa itam aw tàgg la waxam jëpp dëgg la waaye da ciy boole mel ne wurus wa gën a foor moom waxam day rafet mel ne wurusu dóor wa fadluhu te ngëneelam la al jëmm lay aji bari lam lam yab fara mustatuufu bi ci moom ahadun kenn wa sadruhu te dënnam ba ar raxbu bay aji yaatu صاف اجي سل لا ما به دن منك تي موم قدر بن نخ نخ وعلمه تخم خمم با النافع با اجي جارين الهادي تي جي جندي تلاميذه دونغام يا كل بحر من ملني جيج لكن واي الارواح رويا تطهر دنا ني لاوي بي تي خم خمم بوبو اي غنيلم دا بري بري باغا خمني منيف كو واني كا تاك yàlla may ko dënn bu yaatu boo xam ne dafa set wecc lépp xaj ca te nag dara lu koy taqal mënu koo jege yàlla may ko xam-xam bu am njariñ boo xam ne ci lay gindikoo ko gindee ci lay gindee taalibe ànd ak moom ngir yàlla xam-xam bi nag moo mel ni géej géej nag daa nga ci sëmb mbaa nga fóot ca setal waaye mu ne moom xam-xam ba mele géej géej gi ay ruu lay laabal maanaam xam-xamu sëriñ bi day defar ruu yi bañ ma nekk seen boroom lëxoo ñeel na ko la dal mala ifa mbooloo ma al ala ma gën a kawe rafihu tanaa ak yëkkati kuy tagg wa zikruhu aw turam mustahil aju siiw la fi samaa ci asamaan wal ardi ak suuf sëñ bi yàlla da ko yëkkati ba sax di ko puukarewoo gaa yu sell yi ci kaw muy malaaka yu tedd ya ak gaa yu tedd ya ci des ni ki yonante yi yàlla da ko yëkkati ba di ko damoo fi seen kalmaalin ndax gis ngeen ku mel ne kii mu am fa tagg woo xam ne ak dara ji jo xamne ñépp ko xam kon sëñ bi aw turam daj kaw ak suuf dajna fet fépp dawul basairi worom gis ci xol yi turam boole seen moo bixinoona way mokk lañu la ho ñel ko wal kullu te mom kep ya tamir dana top bil awamir ci ndigal ya min hutukee ci mom mbolim ñi nga xam ñoo amee gis ci su xol nangul nañu sëriñ bi duñ ko gantul dara te lu mu leen digal ñu def lu mu leen tere ñu bàyyi fahwa moom daa mel ni annabi yoona mooy mboolem ñañu solo wa ruslu ak yonante ak kiraam ñi dewe tedd man doole seen wal awliyaaw daa mel ni mooy mboolem wàllu ya al hudaatu ñi dewe jub tey jubal asadatu ña ay sang al ghururu di ay tanef sin bi da wecci mbolem ñu baax ñi fi nekkaloon yàlla da wecci mbolem yonante yi wecci mbolem walwi yi kon jëmum dafa wecci mbolem ñi yàlla masa taxawal ci kaw suuf ñu di ay yonante mbaa ñu di ay walwi yu قد صلب ركنا القادر يعلم اجاتا الذكر القران جا الحكيم جي اجبر حكم له نيلكو له نيل نكو الخيان جاكار لوغا وحين غيره تنك له كل موم القبر خبار با يالا فاب القران جخكو نكو مومالي نالكو defal naa la ko muy sa ndono yaa ko moom bokkoo ko kenn dafa mel ni sëñ bi dafa jàkkaarlook mbir yàlla ya ku bokkut moom nag da koo dégg rek ci noppam daa mel ni daal ku bokkut ak sëriñ bi dañ koo xibaar rekk muy dégg sëñ bi nag moom yàlla woon ko muy gis jàkkaarloog mbir ya ko soob mu won ko ko هذه إله مصاحف أهل الشرق نول كامله وابنكوا كلهم وكبتنهم كأهل غرب نكنا نسو وتفتح رتنا دمو بالأستاذ جسرين به من خالل وابنكوا أقوى سو نجي دو جمج سنبي ديكوير القرآن من خمنه moom rek la jàppe alal moom rek la jàppe woon dara wal xaafizuuna te way mokkal ñi alquran jamihan boole seen taxta rutbati ci doon dara jaam mbaa ci doon ak kilifteefam mustabshiruuna way bëgg lañu kama tastabshiru ni kiy bëggee ni kiy bëggee rek ak suwaru saari alquran yi di wétli ko sëriñ bi di danoo sëriñ bi ñi nga xam ne ñoo ko mokkal itam ñoom ñëpp dañoo daw wut ko amee ci moom mbégte ndax xam ne alxuraan ji ñuy mokkal di ci wut njëriñ sëriñ bee ko moom te ku jaarewul ci moom rek sa alxuraan turwaa fay nekk waaye day mel ne maanaama nekku fa haza jàppal lii وإن الذي نكل خمن أعطاه جحنا كوكو خالق فو أجب دمجة من الفضائل شيء جنيل حار الجلمنا دونه أجيسم الفكر خلاديا من سيبو أنا yap bu wax ne diko yalla jox ci ay ngeneel mune suko xalaat ba xam namu tollu ba nu mu yàlla mi ko ko jox rek moo ko xam fa xazu ahbaabihi cërub ay soppeem fawsun mooy texe wa maghfiratun ak njéggal wa toolu humrin ak yàggug dund wa yumnun ak barke lay sa yan xasiru loolu du takku wa xazu man cërub ña nga xam ne lam yetuubu tuubuñu min iddaaxu ci noonam yi maxan mbële seen alqatlu moo di ak rey wal xabs akuk tëj wal xisiyaan akuk jecci wa shararu ak ferñeent muy sawara ñi yàlla baax ñu sopp sëriñ bi dañuy am faw texe njëggal fanu gudd wu ànd ak barke bu amul àpp ña koy noonu nag yóbbitukul tuub xanaa sax ca noonu ga am lu may fuñ ñu leen leen leen kaso ñu ànd ak toroxte te buñ dee dem sawara boole ci àddunaa la am na waxta sibaa ci waxtu ndaw wa maa loo xam ne sa lottal na kubara way mage ya alkubara amooy cosaan yaa xabbasaa yéem naa baaxug lii kibarun te mooy ak mage min hu ci moom kasaani ki nii saxarun ak ndawe mu ne ca ba muy ndaw la am cërub gaayu mag nyamak mag ca ndawam rek la làqe la gaa mag yaa mag daan am ca bañ demee ba àgg ci seeni àgguwaay kon nag ku yóbbu yéem ak ndawam ak magam yaar yépp lu ci nekk rek kiimtaan la anwaaruhu ay leeram saatihaatun way jolli lañu kulla asminatin ci yépp jamono yox yi dana dekkale bihaa ci ñoom kulla xal bi bépp xol si fuufoo boo xam ne la mu yemal alxajaru mooy doj yàllaa ko may ay leer yoo xam ne day jolli di leeral saa yu ne te ci leer yooyu kat lay dekkalaate mboolem xol yi nga xam ne daanaka deewoon nañ wet dëgër këng ba mel ne ay doj ci leer yooyu la sëñ bi dekkale xol yu deme noonu in kaanat ndem nekk na al bulagaau way man ñaa wax jam hu la al lusnu ñari wet làmmiñ tam daxuhoo di ko tagg fal ardu suuf si tam daxuhoo dana ko tagg wa nabtu ak gàncax ga wa wa xijru ak garab yi mu gis nga ña wax dëgg-dëgg taxaw ci tagg ko xamal ne la nga defee ni mënta wax itam ni ki suuf ak la ciy sax ni ki gàncax ak garab yooyu yëpp ña koy tagg di waxu mbaaxam wa in takun ndéem dangaa nekk fekkee wàqante la tuuf di di addi yàlla foo ñeel ko fi xaran ay saccu bistanaa ci tagg bi tanaa'i mooy cosaan fa inna sharwahu, naka ndendam lam tadfara mësta tuufu maanaam mënta tuufu bi ci moom fiqarun ay sàccu bu bëggee wax ay wax ay dog yu rafet di ko jëmale ci moom it def nga lu baax waaye sëñ bi sta wax wax ak loo dem dem dayo ba wax dëgg-dëgg dayoom batay nak wa in takum bisana tufdi lahu fiqran da neex delo ko ci al bulaghaa'u ñu faral di def lu mel nonu ci naxu aba'uhu bayam ya al ghurru ñi day sang ma ajdadihi andak mamam ya al kurama ñi de way tedd muhazzamun ñu magal lañu irtadaw lambayo nañu bil majdi ci tedd nga wa tasaroo te ñu tubayoo ko mu ne ay baayam ak ay maamam naka jekk dañuy ay nit ñu màgg a màgg ñu yàlla fonk nga xam ne seen biir ak seen biti yépp tedd nga ak teraanga rek la na sajtu rabbana fii mat yi ci taggam wa azzaaki yi aji sell burooda tanaa mbubbi tagg xadd zaanaha yoo xam rafetal na leen alwaxyu jam ga wa tatriisu ak borode ga wal xibaru ak ndëng ya xeetu njam la goo xam ne dañ ko daan def ca yaman alxibar dafa misaale taggu sëriñ bi boo koy àbb maanaam boo koy defar mu mel ne kuy ràbb ay yére mu mel ne nag kon man ngaa misaale tagg moom ci tagg nee na ay yére yoo xam nañ ko daamina rafetal ko lool xeetu daamina bu ne ñu def ko ca ba dalay yéem daa bëgg wax rek ni mu taggi sëriñ bi ni mu rafete ndax lim ci wax ci sëriñ bi day meloy sëriñ bi laakin waaye wa in baalaxat ak doonte demoon na dayoo fii wasfihi ci ak melalam kalimi samay baat لا ينقضي دجيخ نصف نصف الياه جن والو اي كويم ولا الخشر تجاجين فكيل به من واي نك لو دغ ما واخكو تي اي مل تي اي بات يو ملني دا فا دم دايو تي تاغ يتام خمال ني تخول ما واخ رك جن والو لا نيو واخ تي موم داغ ني سو تخول ما واخ اسكاي لا واخ تي موم sama baat daal luñ dem dem dayo ñu ag ci asaka ñu wara wax ci sëriñ bi sax ya sayyidi yow sama sang ibna habibillahi kay doomi habibullah ya wazari yow sama wéerukaay ya xayra man yow ngën ci koo xam ne nii la ameef na alwataru aajo fii am daax yi ci ay taggam yaa man yow mi nga xam ne xalaw naa kawee nanu bi ci moom fawxal kiraami ci kaw way tedd ña maxan boole seen nga xam ne fa nax nu nun naf xuruhum dana nu leen not ci ndam ana daanu leen féete kaw jong leen ci ndam min hay su maf taxaroo ca fu ñu fa damoo fala tara doo gis waaxidan kenn min naa ci nun te taxsibuhu te nga koy jort illa amiran dara muy ab buur kabiran buy aji mag buy aji rëy xalfaxoo bopp nekk na ci gannaawam zumarun ay kuréel muy ay mbooloo ya koy dar yaaman yow mi nga xam ne hadaanaa jubal nanu wa alaanaa te mu yëkkatinu wa akramanaa te mu teral nu fa saarati mujj al khamru wa min tahti aqdaamin ci ron ay ndëggu la naa ñelnu innaa naka nun shakar sant nanu la fa qabal nga nangu sumu cant abaran faaw ya khaira man yow ya ngeen ji mbolim nga xamne shakaru sant nañu turon boole sen wa man ak nga xamne shukiru santef na len day bëgg jax xasida gi mu wàqati sëñ bi ne ko yow sama sang yow sama wéerukaay yow mi nga xam ne ku ñu tagg di am ci moom paju aajo yaa ko gën yaa képp ku ñu tagg am ca tagg ba paju aajo yow mi tax nu nekk ci kaw gaa yu baax yépp nga xam ne buñ dee damu rek mu féete leen kaw ci lépp luy xeetu ndam yaa tax daal kenn mënta damoonteeg nun koo gis ci nun day mel ne buur la boo xam ne kàngam ya dañu ko dar da nga noo yëkkati ba nga xam ne koo gis ci nun day mel ne buur la bu kàngam ya dar ci wet gu ne del ko wane ko yow mi nga xam ne yaa nu gindi yëkkati nu teral nu bay mujj sax nekk ca kaw weer wa nga xam ne weer wi moo nu féete suuf noo ko féete kaw yow mii day na la wóor ne noo ngi lay sant rek kon nag yàlla na nga nangu sunu cant yow mi gën daal ñuy sant gën ñuy sant sant nanu la yàlla na nga nangul sunu cant wa in khalawta de wet nga mahal mawla andak bur ba muy yalla wala ahadun te ken yarakuma mu len di gis fadhkuranna na nga nu tuddu yang man yow ngeen ji mbolim nga xamne dakaro tuddu nañu mu bo wete ak sa borom mu yag mom dong tuddu nu fa sa borom ndax yalla may nu paju aajo ci tudd bi nga doon tudd fa moom sa borom boobu yow mi gën boolem ñuy tudd siddinaa yàlla nag nu dolli al ihanata dimbalee ga wa nasra ak ndimbal la mbaa nga ñaay la alxasiisa la eji tedd maxan booli seen inal kiraama naka way tedd ña ida mastun siroo ndeem dimbalikof na leen manam sakku nañ ci ñoom ñu dimbalé nasaro ñu dimbalé señ bi yalla nga nu dolé dolé dimbal ak nga ñaay ndax ya fété ko mbolim gaay bax yi te gaay bax yi mom ku sak ñoom dimbal rek ñu dimbalé ko àllayka ko yalla dolé nek ci yow ma kulli mahbubin ànd kep ku ñu sopp rida maliki sama buur bi dafa ñeel na ko mawaaxi bu ay may laa tubb xii yooyu duñu desal dara wala tadaru duñu bàyyi dara ne ko maa ngi ñaan yàlla mi nga xam ne ay mayam amul fu mu yem mu dolli laa gërëm gërëm dolli gërëm mboolem soppe ya walahu aydan min at-tawil aqbala dëgmal si na al koom ma bi madhi xadimil Moustapha ci tagg liggéeykatu kañu tànn wa wallaa te dëddu alxusru ñàkk ga ilaa gayri les yi jëm ci kudul ka nga xam ne yam daxu dana tàgg mu ne kuy tagg sëriñ bi lépp luy am koom ak luy jàppandi mbir ak luy paju aajo dal lay dëgmal lépp luy xeetu ñàkk ak jafe-jafe nag wan la gannaaw faaw kon tagg sëñ bi ci lañuy ñuy amee tàggoog lépp luy ñàkk ak jafe-jafeeg lu ñu taamuwut am nag lépp luy koom ak jàppandeeg paju ajo huwa moom ibnu xabibillahi mooy doomi xabibullah ahmadu turam mooy ahmad dul xulaa kay boroom kawe ya man ko nga xam ne in xatta sippiku na al anjumu biddi ya al zuhur ya di way leer xan xaliyaa yi walis ay kaweem wala nga ne mbiram yu kawe ya mooy doomi xabibullah ji nga xam ne ahmadu mooy turam di koo xam ne biddi nekk ca kaw li kaw ay mbiram a féete kaw biddi yooyu day wax rek mu sëriñ bi nekk ca kaw li kaw ñe ca kaw li kaw patan waaju baax la sa du tuufu na bil marwo bi ci lañu xemmem sirran ci lu nëbbu wa jëxëran ak ci lu bir waxadd asrat te xeebloona anaamiluhoo baaraamam ya alxasru ya di fukk bi suuf bi ca niir ya mooy waa baax ca nga xam ne lépp lu ñuy bëgg ko taamu am na ko ci biir biti te ak tabeem moo féete kaw waami asab